madame Oumou Kalsoum Diom ñu ngi lay nuyu. Uh, asalaamaaleykum Jacques maa ngi lay fay lu bari. yow yaay njiital kon commission investissement ak partenariat bu mouvement des entreprises du Sénégal di MEDES ngeen di waajal li ñu duppee forum du premier emploi lu ko dalee kon euh, lëg ci talaata gi lan mooy forum du premier emploi boo ñu ko mu mënoon faram-fàcceel. waaw Jacques euh, nga baal ma rek balaa may tontu ci sa nga may ma juste ma nuyoo ak euh, ñi nga xamante ni ñoo ñuy déglu. Mhm. di leen gërëm ci ci ci déglu bi et puis di di ñaan yàlla tamit euh, li ñuy waxtaanee nekk lu am njëriñ. Mhm. ci ñëpp donc pour répondre à ta question forum du premier emploi en fait du ndaje la ah buñ ko buñ ko mënee faram fàcc ndaje la dafa concerné vraiment euh, ñaari pilier yu important wu suñu société benn bi mooy entreprise yi hmm. beneen bi mooy capital humain bi capital humain bi mooy ressources humaines yi mooy nit ñi hmm. ndax nit ñi tamit dañoo xam dañoo war a xam ni que valeur lañu amul benn entreprise même bu fekkoon ni industrie la nga xam ne machine rek a koy doxal hmm. ci lu ci ëpp waaye nit boobu taxawul pour bës ci bouton yi du sotti donc capital humain dafa am solo ci entreprise e loolu moo indi tey tamit euh, bokk na en tout cas ci li tax depuis vingt deux ans ñun ñuy def le forum du premier emploi pour di permettre nit ñi euh, maanaam capital humain bi surtout bi nga xamante ni euh, bi ci gën a jeune bi nga xam ne parfois musul am sax opportunité def premier entretien donc que jeunes yooyu ñu mën a ñëw toog ak ay entreprises donc ñu ñu sant yàlla y eu peut-être ay plusieurs centaines de jeunes yoo xamante ni inscrire ñu pour participer ci édition ren bi am na ñu également moins d'une cinquantaine euh, ou une cinquantaine d'entreprises yoo xamante ni nangu na ñu ñëw jàkkaarloo ak ñoom parce que nekk nañu parfois ay jeunes yoo xamante ni musuñu am opportunité jàkkaarloo ak ñoom wane tamit seen talent parce que bëri na ci ñoo xamante ni vraiment am nañu talent donc euh, daje boobu loolu la permettre vraiment ñi nga xamante ni ñooy entreprise yi ñu daje ak ay jeunes yoo xamante ni yu talentueux lañu ñu wan li ñu mën ñu am fa opportunité am peut-être un premier emploi wala ñu am benn contrat wala même benn stage parce qu'il faut toujours commencer quelque part xale yi tamit dara. ci hmm. buñ fa ñëwee. Euh, objectif bi bu nekk rek am un emploi. objectif bi na nekk voilà bëgg am CDI tout de suite parce que alors que peut-être amoo mosoo am expérience professionnelle. Hmm. xam nga loolu dina jafe. Hmm. entreprise yi léegi tamit foog xale yi aussi xam ni ñuy doxee mooy euh, maanaam en général ni ñuy commencer peut-être parfois si stage la mais stage boobu buñ leen koy proposer aussi buñ ko xeeb. ndax si stage bi wane sa valeur boo jógee ci stage bi ñu proposer le contrat bu fekkee ni wane nga lépp li nga mën ba entreprise bi xam ni que ah yow kat mënu laa mënu laa bàyyi nga dem bu boobaa da ngay wane continuer di wane lépp li nga mën am sa contrat avancé te tamit xam nañ ne xale yi li ñu bëgg wax dëgg fa yàlla lu légitime la. Hmm. mooy am liggéey boo xamante ni dinañ ci mën a téye mën ci jàppale seeni i waajur jàppale seen i famille te loolu vraiment c'est une aspiration légitime chaque individu. léegi nag euh, benn fal daanaka moo dox suñu diggante léegi ak euh, forum bi ndax ëllëg ci talaata gi lay door wàccaay gi fan ngeen ci tollu ak euh, édition bu ren lan lañ ci mën a xaar lu bees. waaw comme ni nga ko waxee on est à moins de vingt quatre heures vraiment ci ci édition deux mille vingt trois bi donc euh, je pense que lépp yemb na ni ñu koy waxee ci wolof Mm-hmm. donc euh, ci wàllu organisation bi macha allah je pense que euh, xale yi MEDES yi def nañu lépp euh, te tamit commencé nañ ko tàmm aussi ndax ça fait vingt deux ans qu'on mm-hmm. Mm-hmm. donc ci wàllu organisation bi yëpp alhamdulilah yàlla mottali na yëpp ci wàllu également ñi nga xam ne ñoom ñooy participer ni ma la ko waxee ci njëlbeen rek xam nañ ni que ay centaines ou plusieurs centaines en tout cas de jeunes inscrire nañu Euh, bien que jàppuma lim bu juste bi. Mhm. mais je sais que bëri nañu torop macha allah. Mhm. comme chaque année. Mhm. parce que xale yaa ngi bëgg liggéey ñoom i tamit wax dëgg fa yàlla. te tamit entreprise yi aussi nangu nañu continuer di accompagner initiative boobu donc euh, ni ma la ko waxee aussi am nañu une cinquantaine d'entreprises yoo xam ne dinañ ñëw. jàkkaarloog xale yi déglu leen waxtaan ak ñoom et puis xool ñi nga xamante ni vraiment ñoo ci ëpp talent ak ñi correspondre ak. profil yi nga xamante ni ñoom moom la ñuy ñoom la ñuy rechercher. Mm-hmm. et Dieu sait qu'il a donc. Euh, bisimilah rek mu fi ak euh, mardi donc suba lépp commencé incha allah ñu ñu mottali lépp si jàmm ak salaam. Mm, ni nga ko waxee miis ngeen ko léegi ndax ñaar fukki at ak ñaara a ngi nii ngeen koy def boobu ak léegi ay téeméeri ndaw at mu yàlla sàkk ñu jaar ci ci forum bi ndax ci misaal mën ngeen ñu euh, wan wala nettal ñu ñi nga xamante ne xëy na ci forom bi lañu jaar tey. ba yàlla def euh, daanaka euh, am nañu réussite ci seen wàllub euh, vie professionnelle. li ngay wax am na solo torop parce que chaque année dañuy gis njëriñu forom bi. Hmm. te chaque année daf ñuy gën a dooleel ba ñuy yàkkam ci di def édition bi ci top xam nga ni MEDES yemul rek ci nekk corporation boo xam ne dafa concerner entreprise yi bëri na événement yi nga xamante ni MEDES daf koy organiser tout au long de l'année mais forum du premier emploi bokk na ci yi nga xamante ni ñooñu gën a yitteel parce que dañoo gis njëriñ bi Hmm. au fur à mesure ñu koy def at ba at plus ñuy gis njëriñ bi plus ñu mu ñuy gën a yokk doole donc ni nga ko waxee bëri na ñi nga xamante ni jaar nañu ci forum bi te li ñuy li ñuy gën a yokk doole loolu bokk na ci parce que boo demee chaque année gaa di nga gis ñi nga xamante ni inscrire nañu ñu gën a bari loolu misaal la Mm-hmm. mais tamit booy toog d'année en année ngay gis ñi nga xamante ni xëy na participer woon nañu ci ay édition yoo xam ne c'était il y a vingt ans il y a quinze ans ah, nga gis leen ñu dellu si waat di ñëw di témoigner ne ni man jotoon naa jaar ci forum du premier emploi que bi ma ci jaaree gis naa ci njëriñ parce que permettre na ma ma obtenir sama premier stage permettre na ma ma am sama premier contrat que ñooñu di ñëw di ko wax dañu nekk ay personnalité nekk ñoo xamante ne dañ leen ràññee ci dëkk bi ak ñoo xam ne dañuy doxal dëkk bi te li may wax nii dem na sax ba ñoo xamante ni tey ñu ngi liggéey présidence de la république loolu daf ñuy yokk vraiment euh, fierté di ñu encourager ci lu bari pour ñuy continuer initiative boobu. ndax comme ni ñu ko waxee euh, wala boog ni ko ñëpp xamee euh, ku ñëw ci forum du premier emploi nekkul loo xamante ni xale yi dañuy ñëw euh, fay bu ñu bëggee ñëw fak fekkee forum nekk na loo xamante ni dañ koy def gratuitement pour ñëw mm-hmm. donc vraiment lu mu métti métti métti chaque année on tient à faire forum premier emploi. ci wàllub xëy lay yëngu rawatina ndaw ñi ñu gis ni xëyub ndaw ñi donte yéen a ngi ciy dafay jéego waaye mu ngi fi ba tey jafe-jafe bi ngir ndaw yi daal di am xëy ci Sénégal lan nga jàpp ni moo ko waral ak noo ko jàngatee. waaw bu ñu xoolee Sénégal suñu population bi. wax dëgg fa yàlla mën nañ ni l'essentiel de la population xëy na juste pour bañ a lim ngeen baal ma ko nag bu ma ko waxee ci français mais plus de soixante dix pour cent de de la population dafa nekk population boo xamante ni ay ndaw lañu. Mhm. mooy maanaam téeméer boo jël. daanaka juróom-ñaar fukk yëpp ay ndaw lañu. ay ndaw lañu. te loolu mu nekk loo xamante ni lu bëri la lim bu bëri la ci téeméer bu nekk euh, boo xoolee ñooñu ñëpp peut-être lu ci ëpp genn wàll gi amaguñu liggéey ñi ngi wut liggéey donc loolu mënuñu ko bàyyi di ko seetaan noonu ñun ñëpp dañ ci am loolu waruñu ko bàyyi rek ak ci loxoy état Mhm. Euh, secteur privé bi dafa am rôle bu mu ci war a jouer secteur privé bi mooy ñan mooy entreprise yi MEDES secteur privé la donc entreprise yi tamit dafa am rôle bu mag buñ ci war a jouer parce que dañu war a accompagner xale yooyu bu baax pour que ñu mën a sukkali ñun ñëpp ñu ànd sukkali li nga xamante ni mooy Sénégal ñoo mhm. mënuñoo ñoo sukkali dëkk bi te euh, lu ëpp ci ci population bi nekku ci activement hmm. il faut que li ci ëpp li nga xam ne moom la ñu am ressource bi nga xam ne moo gën a am kattan mën a bokk ci xeex boobu bu baax parce que ñoom rek buñ ci nekkee ku ci nekk am foo jàpp mais dëkk bi dañ koy defar ci lu gaaw parce que man loolu gëm naa ko ni dëkk bi dafa nekk dëkk bu war a avancer hmm. te du ressource bu ñu manqué du ay ndaw yu ñu manqué pour mën koo yóbbu fu sori mag yi macha allah ñoom i tamit ñi ngi fi ak seeni xam-xam war koo transmettre aussi parce que loolu tam dafa am solo hmm. mooy ñi moo nekk ci ñi nga xamante ni ñoo ñoo ëpp at wala ñoo gën a âgé nga baal maas wolof bi taxu ko mm. taxu ko leer tamit mais en mu noonu donc euh, euh, aîné yi ñoom i tamit dañu am lu bëri loo xam ne dañ ko war a transmettre ndaw yi pour que ndaw yi mën koo transmettre ñi ci gën a nekk xale encore ëllëg donc transmission boobu pour mu am il faut que ñun ñëpp ñu jàppandoo amul benn dëkk boo xamante ni mën naa avancer te li nga xam ne moo ci ëpp solo ci population wam concerné moo tax mu mel ni wàllub ndaw ñi moom soxal nañ leen lool ndax lu mooy lii am na tamit euh, lii di Afritech nga xamante ne def na juróomi édition ngeen koy amal waaye tamit forum bi nga xamante ne ñaar fukki at ak ñaar a ngi nii ngeen di woy di ko amal te daanaka euh, du dara li ngeen ci yootu lu waral loolu ndax gars yi dafa mel ni duñu fay dara. waaw effectivement ni nga ko waxee noonu la amee gars ñi du fay dara mais ñun li ñuy liggéey pour ëllëg la je pense que njëriñ bi ñun ñëpp dinañ ci dinañ ci suñu dëkk taxawee comme niñ ko bëggee entreprise dinañ gën a meññ ndax bu booba ñoom seen kàttan dina ñëw ko ci xam-xam bi ñi nga xam ne moom la ñu ñëw fekk ci entreprise sénégalaise yi ñu kàttanal leen yokk leen aussi ci wàllum technologie parce que xale yi defe naa li ñu li ñu am loolu yàlla may na leen ko nouvelle technologie yi ñoom niñ koy maîtriser dafa gaaw dafa yomb mais esprit aîné yi nga xamante ni parfois xam nga dafa am yu mu jotoon a tàmm ba pare pour ñu formaté wu waat demaat donc xamante ni ñoom ñoo fi nekkoon ñoo fi nekk ba léegi dafay jóge itam ci xale yi di ñëw parce que euh, euh, euh, xale yi nga xamante ni mooy jeunesse boobu nga xam ne dafa war a ñëw ci ci ci forum du premier emploi wala entreprise bu mu mënti doon ci ci ci entretien bu mu mënti doon même ci entretien bi ah jàngat am na boo xamante ni mi ngi jógee ci ki nga xam ne moom mooy def entretien bi recruteur bi di jëm ci ci jeune bi nga xam ne moom moo toog jàkkaarloog moom mais am na tamit xam-xam bi nga xamante ni mi ngi jóge ci jeune bi di ñëw ci ci recruteur bi. Hmm. te échange boobu bu amee rek. ba ñëpp yëkkati niveau yi ku ci nekk jàng ci sa moroom ba pare jàngal sa morom dara tout de suite recruteurs yi dañuy gis talent bi nga xamante ni moom lañu ki ki nga xam ne moom la ñu jàkkaarloo am. Hmm. xam tout de suite dañuy gis njëriñ bi nga xamante ni nit ki mën na ko apporter. Hmm. donc xale yi bu ñu demee aussi bu ñu bu ñu ragal di exprimer wu wax dëgg fa yàlla amul benn pàcc boo xamante ni soxla wuñ ko tey pour pour pour développer suñu réew pàcc yëpp la ñu soxla xam-xam yëpp la ñu soxla te xam-xam bi mu ngi fu ne waaw au-delà de la transmission qui doit se faire ci aînés yi jëm ci xale yi am na tamit benn xam-xam bu war a jógee ci xale yi dem ci mag yi donc euh, échange boobu dafa dafa am solo torop torop torop torop que mu nekk nag ci ci ci wàllu forum du premier emploi que mu nekk ci Afrique ñun dañoo jël le war a accompagner xale yi te loolu wax dëgg fa yàlla résultat yi nga xam ne ñu ngi ko ci gis chaque année daf ñu ciy gën a dooleel daf ñu ci gën a may conviction pour ñu continuer di ko def te yàlla xam na ni bu ñu mënoon sax di yokk encore vraiment initiative yi jëmale ci ndaw yi dañ koy def waaw parce que xam nañ ni avenir bi loolu la. Mm-hmm. ñu gis ni xale yi tey ñoom ñooy nekk magi suba. donc lépp lu luñ ci mën a def rek dañ ko ciy def ba suñu dëkk avancé. ñu gis ni kon ren ji da ngeen bëgg euh, jox gëdd lu jëm ci wàllub mbay ñi. lan moo waral tànneef bi. ah waaw comme ni nga ko gisee euh, wax dëgg fa yàlla euh, mbay mi nekk na sujet boo xamante ne àdduna bi yëpp tey ñu ngi koy waxtaanee parce que pandémie Covid 19 bi jàll na fi ñu tëj dëkk yi. Hmm. ku ci nekk war a trouver solution yi pour dundal dëkkam. ñu ne déet ne waay mu am euh, crise euh, russe ukrainienne boobu nga xamante ni tey guerre la mujjee guerre boo xamante ni xamuñu sax kañ lay jeex te situation boobu yëpp dafa dafa tax tey ñu ñu ñu ñu réaliser benn benn situation boo xamante ni peut-être dafa anormal mais mosuñu cee teg réellement suñu bët mooy que ñun lu ci ëpp ci ci jumtukaay yi dund yi nga xamante ni moom la ñuy utiliser ci suñu dëkk yi dafa nekk dund yoo xamante ni euh, denrée yoo xamante ni dañ koy importer te pourtant yàlla baaxee nañu suuf koo xamante ni mën nañ koo bay yàlla baaxee nañu tey plus de la moitié population bi c'est une population qui est rurale donc kattan baa ngi fi nit ñaa ngi fi suuf si yàlla baaxee nañu ko lan moo waral ba tey li ci ëpp ci suñu ci suñuy dund ñu koy ñu koy importer hmm. lan moo waral tey ba agriculture war a nekk rek 17 pour cent de de notre PIB loolu yëpp nekk na ay question yoo xamante ni dañ cee war a toog xalaat gëstu ko corriger aussi euh, amaana suñuy suñuy erreur suñuy trajectoire ak xoolaat suñuy priorité te priorité yooyu wax dëgg fa yàlla autosuffisance alimentaire ci wàllum adduna euh, ni mu taxawee tey autosuffisance alimentaire nekkatul rek benn question boo xamante ni nit ñi dañ koy wut pour juste le développement tey dafa nekk une question de survie hmm. àdduna tollu foofu donc li nga xamante ni dañ ci nekkoon état beeg euh, acteurs yëpp nekkoon ci xëy na nànk-nànk di dem tey euh, wax dëgg fa yàlla adduna bi ni mu tawee tey daf ñu obligé daf ñu imposer pour que ñu trouver ci ay solution rapidement donc agriculture dafa nekk pàcc mu am solo boo xamante ni dañ koo war a développer dañ koo war a itam transformer parce que tamit amul solo ñi nga xamante ni ñu jël suñu agriculture développer ko ou ko te du ñu teg également euh, problème mu transformation bi dem ci ay industrie euh, ci création en tout cas ay industrie yoo xamante ni dinañ ñu mën a jàppale ci transformation boobu tukkali dëkk bi réellement tamit permettre ñi nga xam ne ñëpp dañ cee war a bokk boo boo boo tontoo question wu agriculture ak problème mu denrée alimentaire je pense que di nga mën a yóbbaale ay jeunes yu bëree bëri bëri bëri bëri bëri ci projet mm. parce que dafa nekk secteur boo xamante ni dafa soxla euh, euh, ressources humaines donc forum bi tamit tey dafa war nekk au delà de entretien bi nga xam ne entreprise yi ñu ngi koy def xale yi mu nekk également euh, cadre boo xamante ni xale yi bu ñu ñëwee ñi ci même ñi ci bëgg a nekk entrepreneur ñu réaliser ni que ci suñu ci dundin am na tey ay opportunité ak ay niche yoo xamante ni ñoom war nañ ci mun a taxaw te buñ ci taxawee dinañ ci non seulement am ndam pour seen bopp mais dinañ aussi yëkkatiwaale seen dëkk. soxna Oumou Kalsoum Diom yow yaa njiiteel kon commission bi ñu dénk wàllu investissement ak partenariat ci MEDES ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. maa ngi lay gërëm bu baax a baax Jacques ci invitation bi. Hmm. vraiment di la ci remercier opportunité bii nga ma may tey ma waxtaan ak euh, sa ay auditeurs. Hmm. di yaakaar rek ni que bëri na ci ñoom ñoo xamante ni xëy na ay jeunes lañu di yaakaar également que le set ak le dina ñu ñëw fekk si King Fahd Palace pour mën a euh, vraiment bokk ci forum du premier emploi surtout mën a bénéficier ndax lii ab euh, opportunité la bi nga xamante ne képp bépp ndaw. war ñoo ci mën a porox ndollu ngir kon am occasion am xëyam bu njëkk ndax ni nga ko waxee moom la ñëpp di ñaan gàcce ngalaama kon yow ak waa MEDES. jërëjëf jërëjëf merci beaucoup